Mbappé arbitre bi nag arbitre bi ngi waaj a soufflé diggante Talfa ak mbaytin Tine Talfa mi ngi nëb mi ngi bokk écurie Parcelles Mbaye Tine bokk écurie Guédiawaye école lit meur Fadam la bokk ndeysaan Talfa moom moo ñu wan ginnaaw mbaytin Tine wan ñu kanam ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Talfa ak Mbaye day sànni Talfa sànni na gauche jël na ko mbaytoon mi ngay tóor day sànni ñi ngay xeex xeexu mbedd day sànni ñi ngay xeex xeexu mbedd diggante Talfa ak mbaytin laa ilaaha jàpp na ko jàpp na tànk bi day sànni Talfa jël na tànk bi mu ngi koy tegal 16 laa ilaaha illallaah ay bii combat amateur yi lii la ñu soxla diggante mbaytin ak Talfa day sànni xoolal ma lii rek xoolal ma lii rek diggante Talfa ak mbaytin day sànni xoolal ma lii rek diggante Talfa ak Mbaye Tine Talfa mu ngay dóor ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan amateur yi lii la ñu soxla diggante Talfa ak Mbaye mbaytin Mbaye Tine ak Talfa laa ilaaha illallaah Talfa daan na Mbaye Tine jël bi amul benn werante duma na ko daan ko duma na ko daan na ko ndeysaan ndam li mujjee na dem parcelle ndeysaan mujjee na dem parcelle